ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax di leen ziyaara waaw xam nga comme ni nga ko waxee mbir mi opération la opération bi tam li ko indi mooy ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha loo xam ne dafa sàkkuwaat ñu gën a setalaat penc mi ci mboolem yi nga xam ne moo fi nekk yooyu nag bokk na ci régler mbirum circulation bi ci boppam euh, bokk na ci itam ñi nga xam ne dañuy taxawalu ci penc mi di sonal nit ñi di def euh, lu mel ni ay yelwaan ak di kar nit ñi ba duñ mën a def seeni i ziar ni mu waree loolu bokk na ci li nga xam ne moo waral opération bi bokk na ci itam gone yi nga xam ne dañuy daw di tëdd ci mbedd yi ak di nekk ci penc mi loolu itam bokk na ci opération bi bokk na ci opération bi itam ñi nga xam ne dañuy ñëw ci biir penc mi di fi jaay ak euh, yu leen yu ni demee ni nga xam ne noonu lañ ko teree woon ci penc mi waaye bokk na ci nag surtout euh, oto yi nga xam ne dañ fiy taxaw di fi yebe ay client di fi woote ñu dem ca garage coxeur yi ak yu mel noonu opération boobu nag liggéey loolu nag bi ko sëriñ bi joxee jaar nañ fa ñu war a jaar informé nañ sëriñ bi ci boppam sax moo woo préfet ba préfet def sous préfet def benn arrêté wax ko maire yi maire yi itam ñu ngi ci ay liggéey ngir defar sax tableau yi nga xam ne ñoo war a def interdiction yi def nañu barki démb itam benn état de lieu informé ñu itam police ak gendarmerie ba barki démb ci bi ñu waree tàmbali opération bi rek di samedi bi ànd nañ ak sous préfet ak eh, ndawul police euh wër mboolem li nga xamni ñoo wër jumaa ji bedd yëpp yi nga xamni ne fi la circulation bi war jaar ñu bokk itam tok waxtaan li nga xamni moy opération bi nga xamni mom lañu wara def opération bobu nak mom lañu ñu dembu ci samedi ji ci fajar bi ñuy julli fajar 4 h du matin lañ ñew ci jumaa ji commencé daayira bépp di wër japp nañ fi lu bari ci ay xalé yo xamne dañoo dawon eh, lu ëpp fukk ak juroom arrêté nañ leen fi ci dànn kaye ñoo xam ne dañoo daw jàng ñii tëdd ci mbedd yi di def leneen di taxawaalu am na ci ñu jóge woon kokki am na ci ñu jóge jurbel am na ci ñu jóge ci ay daara ci biir dëkk bi waaye ñoom ñëpp suñ borom tabaraka ko taala dimbali nañu ba dellu nañ ci seen i njaboot ci démb ci tisbaar itam am na fi ay jigéen ñoo xam ne itam dañu nekk fii di lëjle euh, ci penc mi euh, bokkoon nañ ci ñi nga xam ne teewaale woon nañ leen fi démb yàlla dogal nag mu am ci seen soxna soo xam ne dañ ko cee ramasale wala ci biir ci biir jigéen ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppoon fii euh, bi mu ñëwee mu mel ne ku amul ak sagoom euh, mel ne kuy daanu dal xaw ñoo jaaxal nag tuuti ñu fexe ba dalal ko ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy nit ku yiw dalal xelam mu xam ne euh, dara du ko fekk lu dul jàmm ak salaam ak tawfiq neexal ko masla ak moom ba mu nangoo waxtaan waaye ci biir ci biir waxtaan bi ñu laaj ko nu mu tudd mu ne Fatou saar la tudd ma nga dëkk cubbeen ca saalum waaye ñi ngi nekkoon Dakaru dafa am baj tantam ju ko yar ju ko yor ndayam ak baayam dañoo génn àdduna tanta jooju nag daf koy sonal moo tax mu génn dem ñu ne ko léegi fexeel bañ jox ñu sa adresse tanta jooju ñu waxtaan ak moom ngir nga mën a dellu mu nangu naa joxe numéro sax waaye numéro bi mu ngi si jot kenn mu waxit ne tàntam jooju moom xelam xalaatul dellu fa ñu laaj ko noo bëgg a def kon mu ne bëggul sax a toog ci dëkk bi waaye nañ fexe ba mu dem ci ay bokkam ci cubbeen foofu nag yàlla dogal ne amu fa benn numéro téléphone mu jaaxal ñu ba ci guddi bi ñuy wàcc ñu dénk ko sëñ Mbacke jam yi nga xam ne moo yore caabi jumaa ji mu yóbbu ko këram comme moom kër gu mag la yor te ay jigéen bari nañ fa mën na faa nekk ci biir këram bon demé ñu top to ko mu rer xey ndeki sangu ba set ñew ñu xey ci euh, feex la xey ci lol ak mbégte euh, ñu ngi koy tooñ sax ne ko mbaa gi neexoon mu ne wa keur gi mu neex na trop xana kon da nga da nga fi tok mu ne dama tok toog nak lima gënal moy ma delu ma dem ci sama nijaay ci ci ben ci nonu xam nga ne daayira bi yaatuna ay membre bari bare ngi ci dëkk yu bari comme niñ def ba xam ba jot ko ki def ko ba jot jur bel def ko ba jot fenen non lañu def itam ba jot Euh, ñu dëkk euh, Kër Madiabel ñooñu dañuy jokkale bañ am ku dëkk Cubbeen euh, kooka nag bi ñu waxtaaneek moom mu di ko gëstu ba xam ay waajuram la ne xam na ay waay waajuram waaye am na benn magam bu nekk Dakar nañ ko woo mag ja Mouhamed Ndiaye la tudd ñu woo Mouhamed Ndiaye moomu waxtaan wax ak moom mu ne nañ ko yónnee photom par WhatsApp ñu envoyé ko photo bi mu ne waaw kii day sama rakk la sum ñaari bay ñoo ndai nday ak bay soxna oustaz omar sall ma ngi fi yebal legi sama mel mbokk mu ñew fofu delsi ci comme na nak ne soxna oustaz omar sall soxna jambour bu fekkante ni dem ko ba gis ko day rafet na nga wo ke nga xamne moko yor informé ko ne ko sa soxna si nga xamne dafa réeroon gis nañ ko fi xolal ndax mom la wala du mom ndax nit ñu na la ne ki sama mbokk la wala nangam nangam waye nga am ñaar ak ñett moo gën a leer ñoo xam ne kenn ñoom ñëpp dañuy bokk luñ wax te duñ yëgoo ndax mbirum nit la ñu door ñu woo commissaire informé ko daal di def nag ay pexe ngir xam numéro Omar Sall rek magam jël moom xamul numéro Omar Sall ñu woo menn mbokk moo xam ne mi ngi fii ci dëkk bi di sunu mbokk ñu bokk di seq liggéey bi mën naa ko tudd sax ndax lu baax la def muy alaaj njaay seex ndindi ne ko fexeel ma ba ci bokk yi nga xam ne ñoo nekk Dakar bañ am numéro Oustaz Omar Sall mu mu ne ma waaw léegi day def ay jéego moom itam ngir jot ko ba jot ko xamal ko ne ko am na ko ñu for fii ci jumaa ji wax nañ ne soxnaam la waaye daayira Muxaddamatu Xidma ci opération bi nga xam ne moom lañ doon def ngir setal penc bi ak jumaa ji ci lañ ko gisee jox ko sama numéro man mi ngir mu woo maa woo yàlla dogal na sax lu jiitu mooy moom mu woo ma jox ma numéro bi man ma woo ko bu ma ko woowee informé ko ne ko dañoo am kuñ far moom nag nee na faat saar la tudd dëkk su bee nangam nangam mu ne waa kon bi du moom ma ne waa ah, te nga xaar kii tuuti rek yor nga téléphone ñu envoyé la kéem ndax jot nañ magam di tudd Mouhamed Ndiaye ndax dafa mel ni Ndiaye la sant ndax kiñ jot mu ne ñoo bokk bàyyi Mouhamed Ndiaye la tudd mu ne ma waaw effectivement am naa numéro whatsapp ci noonu ma envoyé ko photo bi fekk am na sama rak di ko photo woon ba yónnee woon ko Mouhamed Ndiaye ba jox envoyé ma photo man ma envoyé waat ko ko bi ma ko envoyé nag mooy ma tigi kii la ma ne ko léegi nag ma ne ma ngi yebal léegi ñu ñëw fekk fu ngeen nekk ci jumaa ji ma ne ko waaye ñu ngi ci biir jumaa ji bu egsi rek bu laajtee daayira Muxaddamatul Xidma danañ ko jox daal di woowaat commissaire xamal ko ne ko jot nañu borom këram jot nañu itam magam ba danañ ñëw incha allah ñu ngi ñëw mu ne kon léegi suñu egsee soo borom këram egsee parce que boobu sax moom mag ji moom ki mu yebaloon ñëw na boobu moom jëlagul décision pour ñëw euh, ginnaaw bi nag mu commissaire ne kon suñu egsee nañ leen woo mën nañoo téye soxna si fii lépp rek bi ñuy demee ba xam loolu informé waatuñ soxna si ne ko nag xamal nañ jot nañ say bokk ndax dañ doon bañ mu daw wala muy eh, defaat yu mel ne yem dañ def di daanu wala yu mel noonu waaye dañ ko seere ci suñu biir ñun ba akuk dal ba xamu ci dara di ko toppatoo nag teg ko ci roq boo xamante ne bi eh, dañ ko toppatoo ci léppam ba dara du manqué ngir mën a jot ci yu mel noonu waaye alhamdulilahi rabbil alamin daal démb ak tey jàpp nañ fi nag bu bari Eh, kii eh, ci chiffre xam naa da ca bari nag ñoo am na ci ñoo xam ne dañ leen a téye ba kii bàyyi leen ñu demee ne ñi nga xam ne ay ay ay dongay daara lañ jàpp nañ ci mat fukk ak juróom ñi nga xam ne ay coxeur lañu ak i nangam jàpp nañ ci lu toll ci ñeent fukk eh, ñi nga xam ne ne ay ay ay ay ay délinquant lañ moom yoo xam ne dañ doon def lu jubadi moom dox nañ leen police bu ngeen demee police dañ leen dox nombre bi nga xam ne ñëw nañ fi xam naa daal nañ fi oto ba mu fees yóbbu nañ ko waaye nag ginnaaw ci loxoy yoon moom na yoon waxal boppam na nga xam ne noonu la toll waaw xam nga nag dëkk euh, mbir day jox day dox ci yoon ginnaaw mbirum nit la dëgg la nee na euh, dox nañ ba xam moom ndaw si waxu ñu woon ne kii mooy borom këram waaye dox nañ ba xam ne kii mooy borom këram te dafa demoon te ba mu itam gis nañ ci presse bi ñi di wax naan dañ ko kidnappé ñi naan dañ ko nangam façon waxi ni bari na léegi su fekkante ni dox nañ ba gis ay ki ay ay bokkam dañ koy jébbal yoon yoon jébbal ko ay bokkam ndax mbir ndax ndax mbir mi demoon na ci yoon bu noppi ci tënk suñ la mën nañ jàpp ni yéen daayira bi muy dugg ci seen loxo mhm. ci anam yu rafet la ci duggee ci anam yu rafet la ci génn wax insha allah moom ñu duggee ci suñuy loxo ci anam yu rafet la ci duggee bu ñu génn ci suñuy loxo itam ci anam yi rafet la ñu génn ci suñu loxo insha allah taala Alhamdulillah. wax musu musu wala wa sahbihi wa legi deg nañ kaddu yeb lu cheikh bi wax wax yalla rafet na yalla yalla fay len yalla yalla barke ñun ñoo ndongom la xaritam la yag nañ bu ma woowee bu ma mën a ma sàmbkat dégg nañ ne awo njaay feeñ na touba def nañ tuub ngeen dem jël ko ñu and cameraman ki moy cameraman oustad sall mo Sall ki rakam la ñu and ak mom ñu fi ñu woyé ñu wo cheikh bi mu tecc ñu fi ñu ñëw si jumaa ji ñu ñëw ñu xaar ñu ñu xaar ben feleeram ñew ñu xaal feleen bi ñew ñu waxta alhamdullah rafet nañ gis nañ mbir bi gis nañ ko wante gis nañ ko wax dëgg alhamdullah sant nañ yalla bu baax yalla yàlla fay leen yalla yalla barkel leen yalla barkel liggéey yomal samba ñang seen bokk sàmm yi ñu ko ci anam yoo alhamdulilah fekk nañ ko anam bu rafet macha allah alhamdulilah wax dëgg yàlla loolu lañ mën a seede ma sahinna illa bi ma amilna wax dëgg yàlla lañ gis ñu gis ñu moom benn gaañu gaañu gis ñu moom dara wax dëgg yàlla mooy sant yàlla quoi alhamdulilah jërëjëf yàlla yàlla fay ok jazakallah xeer wana salaamaaleykum nan daal la ana